mbokk internet yi ñu ngi leen di siwaat bu baax di leen ngeen daal jàmm su sport 221 musul tay di defal goo xam bi nga xam ne fàttewu leen moom mi nga mooy Maxel Diop ñu nga xam ñu gën nga xam ci Paka Boy l'international sénégalais bi nag euh, voilà danoon inauguré démb ci samedi bi kat benn complex mu tuddee ko ci turam et que moom jàpp leen ci ay action yem ngi koy def ci wàllum dimbali fa mu bawoo ci action sociale et que yemul foofee ndax Estade Ngalandou Diouf bee projecteurs yi bu leeree nañ c'est grâce à lui ndax moom moo jël xaalis bu takkukat jënday projecteur may ko waa Rufisque kon bu ñu amoon dis yu mën yu mel ni moom kat mën naa ne gars yi kenn du jàmbatati ñu dem ci tuggal Ajax nag mooy avant dernière jeune championnat foofee ci Pays-Bas dañoo daanu nag 4 buts à 3 contre Utrecht kon Ajax nag. cinq points dong de la jël ci sept tournée bi joonte na ko kon Bouna Sarr moom mi nga xam ne voilà gën ngeen gis mu joonte waaye kat seen match bi nga xam ne na moo daan may 3 buts à moom kat duggoon à la soixante-quinzième minute à la place de Goretzka ak Goretzka bi nga xam ne moom la jël place moom dafa amee gaañu gaañu kon loole mooy tax dañ ko opéré kon dina uute seen prochain match bi ñu war a amal rawatina ci Champions League bi. rêve Moy mu joué ci Real de Madrid waaye benn mi ngi laaj 50 millions d'euros ci doomu canadien bi mooy Alphonso Davies mi ngi woon ci yoon bu baax ndax 14 bi la dugal en 8 journée le guinéen Sergio Guirassy kat mom dina toog semaine yu bëri du du jogante ndax dafa amee blessure musculaire voilà cat nag mujj mujj na cee dugg suñ gaynde yi nga xam ne ñu ngi mondial U17 ci Indonésie ñoom kat tàmbali nañ tour seen tournoi de préparation foofee Turki ñu écrasé doxantu ci kaw Panama 4 buts à 0 Amara Diouf moo njëkk lakk ci arrière sinon ko Franck Santré la cinquième minute ki nga xam mooy Idrissa Gueye feelu ko trentième minute Yaya Jammeh soixantième minute ak Omar Sall tëj ci li nga mooy bii à la soixante-seizième minute ak kon ñoom dinañ amalaat joonte euh, comme ni nga fësale ci xibaar yi sa sa octobre contre la Russie ek nag euh, ci li nga xam ne mooy seen budget bi nga ne moom moo leen ci mondial euh, ci mondial U17 bi kon jàpp leen kat ku ci nekk dina prime de participation 2 millions que loolee du ñuy rafetlu bu baax a baax buñ gën a xuus na ci compétition bi dinañ gën a yokku li nga xam ne mooy koppari ci Italie la ñuy dafa dugal ñaari but loolee nag mooy may këlëbam yu tembo contre Cagliari et que sax comme un renard de surface moo dugal à la 86e minute moo égalisé ci penalty à la 90e plus 5 kon voilà sa leen nette na ak seen course benn mooy Inzaghi ñoom nag ñi ngi ñëwaat ak li mu ko waxee woon mooy que mi ngi espérer bu laajee dugal 15 buts et que mi ci yoon boobee ñu ñaanal ko bu baax. ca yeneen jëwante yi mën nañ ci lim benn choc moo doon fekk ci San Siro AC Milan waaye nag Juventus mooy mujjee daan. bi à 0 grâce à Locatelli bi nga xam ne sax voilà Milan ñoom ñoo ko formé mu dugal à la 63e minute Malick Thiaw moom di expulsé à la 40e minute. en toute fin de fin de la partie AS Roma mooy mujj daan Monza 1 eh, bi à 0 grâce eh, à un but de El Shaarawy l'Italien ek jàpp leen moom nag voilà dafa tuur ay rongoñ li ko war a mooy kat nee na moom lañ koy tuumaal wàllum kat xarit bi nga xam ne voilà nee nañ taxee na ci waaye moom kat nee na dara laale laalewu ci dara kon lépp kat dara dëggu ci José Mourinho bi nga xam ngeen jikkoom wala ba bii bi duggoon nag da doon ñaawal Babou Monza loole mooy tax arbitre bi hésité wul benn yoon kat brandir carton rouge kon jàppale classement bi ñi la de foofee ci Italie Inter première 22 points Milan deuxième 21 Juventus troisième 20 points ak ñoom kat ñooy septième ak 14 points. foofee ci Saudi Pro League Edouard Mendy kontaan la lool nag ginnaaw bi ñu amee ndam 3 bis ci samedi bi li mooy classement bu bu Saudi Pro League bi fësal nañ ko nag à 10 journée Al Hilal de Koulibaly 26 points mooy première. Deuxième Alta 23 points. Troisième Al-Nasr de Sadio Mane, Cristiano Ronaldo 22 points. Quatrième Al-Akhli d'Edouard Mendy 22 points. Cinquième de Al-Ittihad de Karim Benzema am nañ 20 points ca classement ba. Formose mu def match bu rëy ci axe central ci axe bi ak clubam bi ngeen moom Lorient ñu mujjee daan ren nag ñaari bal ci benn. ak le puissant attaquant bi ñaan Bassirou Ndiaye ñoom ñëpp nag ci académie Darou Salam lañ bawoo pour dire que voilà kon seen seen partenariat ak club boobee lu mucc ayib la ek dans l'avenir pourquoi pas ñu gis yeneen joueurs ñu fule les plus français wala boog. foofee ci tugal ndax dañoo war a jaaxle à huit semaine de la coupe d' afrique des nations foofee ca Côte d'Ivoire ndax kat efficacité suñ gayndeykat vraiment nag. mingi ngi inquiété yi voilà pas ak spécialistes yi ki nga xam ne Iliman Ndiaye ba mingi ngi ni nga xamee woon ci Sheffield United wala melu ko ci OM ndax voilà mën naa ne est-ce pression bi la wala lan la waaye kenn mënoo expliquer lu mënti doon ndax moom mi nga xam ne daawkat mu def saison bu mujjee ñu tabb ko jour bi fa gën a xarañ sax tellement ca marché am na ay jafe-jafe nag bu ñëwee jafe-jafe nag wàllum efficacité surtout voilà ñuy cadrer les tirs à donné car il faut être clinique comme ni ngay waxee ci kàllaamay tubaab Keke xamngeen bu baax Ismaïla Sadou mo len ko nettali contre Cameroun gi mo ci mujju occasion de mettre le ballon deuxième voilà mu mettre ka à côté même situation contre Nice elle avait l'occasion de mettre le ballon du deuxième but voilà dougal ko pour indiquer que voilà lolé nak c'est inquiétant pour la prochaine de génération foot kon li ñuy wax rek moy que ne gëna liggéey ci fann bobé ndax efficacité kat lañuy katakanam il yele way kat moom am na talent bi nga xam ne tey kenn du ko nattable comme à Ousmane Dembélé un ailier virevoltant rapide et très technique mën a def la différence à tout moment waaye nag dafay pêcher dans la dernière geste et que ci fànn boobee war na ci gën a liggéey bu baax baax keneen moo war nañ sant bu baax kii nga xam ne moom mooy Mory Diaw mu génne waat match mu def match bu rëy contre Lyon ce dimanche ñu clôturé neuvième journée bu liggéey bi ñooy daan nag ñaari bal ci benn projet bu 30 ans bi nag dafa reposer nombre de tentatives des Lyonnais cinq arrêts au total notamment tir bu Lacazette ak Henriquet et que nag ci 90 minutes 90e minute plus 2 bi nga xam ne Lyon amoon na possibilité égal égaliser Clinton Mata mu centré benn bal ca Tolisso waaye ka nga xam ne mooy Mory Diaw vraiment mu def benn arrêt bu exceptionnel loole mooy may ndam clubam bu njëkk nag ci Ligue bi. et que nag kon Lyon mooy occupé dernière place bi et que nag euh, Keller moom mooy deuxième relégable victoire du Monaco 2 buts à 1 contre Metz waaye li ñuy jàpp di ko fësal et que ñu bëri di ko waxtaane mooy bii bi nga xam ne Lamine Camara dugal na ko bii bu mucc ayib et que nag bii boobee nag lu mu liggéeyale bu baax baax ndax moom dafay gis habitude kat di góol Monaco bi di avancé lu bëri ci joonte yi kon loolu réflexion na la ko jox mu téye bi rek ca ca milieu de terrain ba voilà laxos ka ca kaaya Krépin Diatta mu joué comme latéral mu joué match bu rëy de même que Ismaïla Jacob suñ gayndeey kat ñu ngi wane seen bopp Krépin jaata gi nag jonte bu ne nag loolee nag du posam bi nga xam ne moom moom la bëgg waaye nag dina def lu mu mën dina def lu mu mën bu ko defee kat muy indi ndimbalam ci club bi dafay muy joxe le meilleur de lui et ca classement ba ginnaaw ba jonte neuf journée Monaco mooy première vingt point deuxième Nice dix neuf point troisième Paris dix huit point quatrième Lille avec quinze point Rayo Vallecano ñoo amaat ndam nag les Madrilènes ñoom ñoo gëj nañ am ndam nag depuis bu Deportivo Alves. mi-septembre 2 bi à 0 kon ñoom ñooy dans Las Palmas le premier eh, 1 bi à 0 par Ismail Sis a été titularisé et que nag Barça bi nga xam ne voilà ma ngay wéyale yoonam ndax ñoom kat comme nañ leen di dëppalee Lac de Guiers ndax seen match nul bëri woon na lool waaye nag grâce à le crack bi nga xam La Masia ñoo ko formé kon kookee moom mooy Marc Guiu 17 ans dong la am de kon jàpp ya leen moom kat match mu njëkk ci liga bi mu dugal bi bu njëkk foofee ci Espagne ak ah, ginnaaw gi ba ko sa dugalee ci ñaareelu mi-temps bi nag ah, seulement vingt-trois secondes kon mu dugal bi bu rëy rëy moo leen may ñun daan Athletic Bilbao 1 bi à 0. ginnaaw gi ndam boobee mën na leen may confiance laata classico bi Xavi yéy na ci yàb yi mu ne nag match bu am solo la nag waaye nag avant ñuy xalaat ci match boobee nañu wax ndey bill yi di San Cardenes ci San Cardenes le club ukrainien boobu dinañ amal match ci Champions League bi laata ñuy doxal ak les merengue ek seen natango catalan yi nga ne mooy xirona ñoom kat ñaari million ñaari ñaari biir lañ leen mëne woon lay wax sax ginnaaw bi ñëw dee 5 millions almeria de John Lopi titularisé nañ ko ñoo fa jaar waaye dañ leen mujj malheureusement 5 John Lopi génn la 68e minute ñoom kat ñoo occupé dernière place bu liga bi kon dara doxul ci club bu John Lopi bi ginnaaw bi ñëw 10 zone Real de Madrid mooy premier ak 25 points ex aequo que Girona ñaareel ak Barça di 3e à 24 points Atlético Madrid 4e à 22 points. ñu bëri doon nañu wax na Habib Beye kat moom lim gën a mën mooy toog ci plateau yi di critiquer donc waaye nag en deux ans de transformé na voilà indi nag tuusam ci club bi mooy Red Star bi actuellement ñooy premier ci national une bi depuis son arrivée nag ñoom maintien donc la ñoon joué waaye xam nañ ne léegi objectif bi lenn la nañ nañ fexe yéeg ci Ligue 2 bi la saison pro jege woon nañ ko ndax la na dañee ñoo terminé troisième ak quelques points seulement ñu raté li nga ne moom mooy monté bi kon ma fàttali leen classement bi ginnaaw bi ñëwatee di journée ndax ñoom dañoo match seen match bi dañ ko annulé woon kon ñoom am nañ vingt cinq points plus dix pour ainsi dire ñu ngi ci woon bu baax a baax pour yéeg ci li nga xam ne mooy Ligue de bi.